mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat ci Limametti point com di leen remercier comme chaque fois ci topp bi ngeen ñu topp lii nag benn information la buy buy ki euh, nga xam ne moom mooy commissariat central benn information boo xam ne Seneweb moom moom moom la joxe dañu ko daal di porter plainte pour escroquerie ki ko porter plainte nag benn waaye la buy expliquer ni moom dafa feebaroon wax ki nga xam ne moom mooy Iran Ndao mu ñaanal ko ndimbal mu ngir nit ñi may ko mu daal di jënd ay garabama ki nga xam ne moom mooy Iran Ndao nag ci li ñu nettali bi mu ñaanee ndimbal li ba pare dafa daal di jël xaalis bi daal di koy jël moomale ko boppam maanaam daal di lekk li nga xam ne moom mooy xaalis bi xaalis bi toll ci ay millions loolu waral ba kooku daal di koy porter plainte ci li nga xam ne moom la moom la wax Iran Ndao nag ñi ngi ko daal di convoqué fa li nga xam ne moom mooy commissariat central ngi daal di koy déglu ci affaire boobu nga xam ne moom mooy affaire escroquerie li nga xam ne moom mooy police nag daal dinay ubbi enquête ngir xam nan la affaire boobu daal di tëddee ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp limametti point com point com la cloche de notification bu leen ko fàtte moo leen di mën a permettre ngeen mën a xibaar yi foo leen mënti toll ma di jox rendez-vous beneen yoon ci bi limametti point com ak yeneen actualité et fait divers au Sénégal et en Afrique.